yow yàlla ab jéggalekat nga te bëgg ak jéggale yàlla na nga ma jéggal allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni xadis bis bi jëleef na ci ibnu omar yàlla na yàlla gërëm leen mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na muurum koor muy doon ab saa ci pepp wala tàngarma ci ab jaam akus gor góor ak jigéen ndaw ak mag ci jullit ñi xadis bi dëppoo nañu ci ab saa nag mooy tolloog ñaari kilo ak genn waa liibar an ibni omar radiallahu anhuma qaal farada rasulullahi salallahu alayhi wa sallam zakat alfitri saan min tamrin aw saan min shair ala alabdi walxurri walzakari walunsa walsaxiri walkabiri min almuslimin muttafaqun alayhi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 yàlla na yàlla nangu te nangu leen amin